xibaar bi leen di gindi fii rek la ci Sen TV bi lépp jotaay xibaar dañu kaa door ak nag màggaluk poroxaan gi ñu ko doon jëmmal ñu ki démb si alxames ji bilang ba sapeur pompier yi nag jot a defagum moo di rek fanweer ak juróom-ñaar ñu ay doomi aadama kon mujj nañu si jëlee ay gaañu gaañu si ay accident waaye nag am nañu si kenn ku sa ñàkk bakkenam ñu àddu euh, jëmale ci àtteb Karim Wade gi jàppale ne kon dogal gu mujj gi euh, soxal nag euh, Karim Wade ak naataangoom ya ñu jàppandool ñooñu nag daañ xam na dogal bi di waddee si ñoom ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars lay doon niki démb nag moo nekkoon la yoggu mujj gi ñeel wàllum plaidoirie yi Salif Kébé Sakho débat yi tëj nañu ko ci cour de répression de l'enrichissement illicite Karim Wade ak ñu ñu boole tëj war a xaar ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars ngir xam nag fan la ñuy féetee ginnaaw juróom-ñaari weer yu procès bi am fi ñu toll nii nag desewul cré yi lu dul mu wax ndax dafay topp parquet spécial ci réquisitoire am ñu fàttali ne Cheikh Tidiane Mara ak substitut am ñoom nag li ñu laaj mooy ñu tëj Karim Wade lu toll si juróom-ñaari at juróom-benn at ñu tëj ko Ibrahima Abou Khalil ak Pape Mamadou Pouy ñeenti at ñu tëj ko Aline Samba Kassé mbay Ndiaye ak Pierre ak Boba waaye it ñu tëj lu toll ci fukki at ñi nga xamante ni dañoo daw su weesoo bi les peines parquet di laaj tamit ñu teg leen ko ci nekk ab amende bu toll si ñatt téeméer ak juróom fukk ci milliards waaye it ñu appliquer leen article 34 bu code pénal wala bokk sax ñu teg loxo lépp loo xamante ni am nañu ko ci alal ñu fàttali ne bu fekkente ne Karim Wade moom ñëwaatul lu ko dalee ñaar fukki fan ci weeru janvier bañ ko xoqatalee ñii di ay co-prévenus ñoom jéem nañu assurer seen bi Bibo Bourgi ak Pape Mamadou Pouy ñoom nag ci plaidoirie yi ñoo mujj nekk seen i avocats bopp ci kanamu cour bi ñoom nag jéem nañoo wane ne nekkuñu benn yoon complice kii di Karim Wade te sax xaalis bi nga xamante ni moom la ñu gañee xaalis la boo xamante ni bu leew la Salif Kébé Sakho njiitu réew ma woon Abdoulaye Wade ni ki démb mu ngi woon sa point e ngir nag doon sa nemmeeku tolluwaayu liggéeyu këram nga fa nekk njiitu réew ma maître Abdoulaye Wade njiitu réew ma woon maître Abdoulaye Wade doon sa xam ne ni kon euh, bu ñu rek jàpp ni kon këram googee Karim Wade moo ko moom du yëfam moom ci boppam mooy borom donte nag ëllëg manees na kaa doon daado dem Abdoulaye Wade ànd ak délégation bu takku ñoo ñëw point E ci këram nga ngir indi ay gindi ci kër gi ndax xamle na kii di Karim Wade moomu ko. dafa am ñaari kër yoo xam ne dañu ko jël ñi Karim ci Karim Karim Karim ko moom. pour kër yi mën a dem ci ñi doon foog nga ci lu pour cent pour cent wala vingt cinq pour cent. alors loolu moo tax ma ne comme fii Karim moo koy moom kër yi dama koy jël ci turu Karim. man maa génn sama xaalis fay ko pour que kër yu ñaari kër yu ndaw yooyu ñu def ci turu Karim problème bi nii la mais kër yooyu rangé naa ko yu ngeen tabax yi ma def à la place ñu alors donc man nañu bëgguma daal di dem ak ñoom ci tribunal ci li jëm ci milliards yi ñu toppee Karim Wade kii di Abdoulaye Wade di xamle ci weeru mars 2013 la daal di bind benn bataaxal kii di njiiti réew mi ngir xamal ko naka la mën a def pour génn ci ruuba bi ñu ko dugal ndax dañu koo nax. Macky wax ji bare na yéen a ngi wër adduna bi di wut ay milliards. ma ne ko Macky milliards yi ngeen seet doo gis dara amul sa nigi sa fa bu amoon man maa koy jëkk a jëli ñi nga xam ne dañu la ko wax ne ni la am na li tubaab di escroc moonaam escroquer eh, mooy nax nit rek lekk xaalisam ma ne ko ñu dañu leen nax ma ko léegi nag da ngay def na ufuwét moom njiit réew ma woon di xam xamle bis bu ñu laalee këram bii ba boole ko ci patrimoine Karim Wade dina dem ci yoon laneen lu soxal bi rek jotaay xibaar tegum xeer bu njëkk lay doon ñeel pong ba war a dox si diggante kon réewum Gambie ak euh, Sénégal jàppale ne kon tegum xeer boobee sax euh, pong boobee daañ ko amal ni tey ji ci ajjuma ji kooku xamle di élémani jëwriñ ji Mouhamadou Boun dala Dionne moom nag la mu sa yokk moo di pong boobee liggéey ba kaka wala sax dana doon si jàppandaluk waa BAD Banque africaine de développement teelu ngeen ay kàddoom euh, si jotaay xibaar bi ci na nasara ndax Amina Gueye desandi sa Gambie ak Yaya Jammeh njiital réew ma ma xam ne ni kon Gambie mu ngaa dox waaram ci li nga xam ne rek moom ma euh, soxal rataxal diggante ñaari réew yi soxol nag pong ba mu nga sa xam ne ni kon luy taxaw képp la waaye nag la sa des kay mooy ñaari réew yi wala sax askan wi nga xam ne ñoom ñoo say jaar ak askanu ko ñaari réew yi bay seen waar ba diggante yi ratax Yaya Jammeh la ñuy teewlu. ñun Sénégal dara lu dul jàmm waaw man li ma war jaam a am diggante Gambia Sénégal maa ko def soo des na si côté Sénégal waaye su fekkee ne ñun ñëpp xarit lañ doomi ndey lañ suma xarit war naa nekk sa xarit suma noonu war naa nekk sa noonu soo li si des nag ngeen seete ko foofu diggante Gambia Sénégal ndax pong am na ndax pong amut pong wi du wax du jagaat diggante bi pong bi ñu ngay def ñu ngay def foundation bi le le vingt vingt bi ñëw ni loolu tam maa ngi wax vice président bi euh, premier ministre bi Adama Macky Sall mu ñëw euh, premier ministre bu ñëw pour ñu lay foundation bi waaye pom bi jaarekaay rek la pom bi du wax du jóg du nuyu kenn soo suñu amee pom sax te ñun énéante wu jàmma pom bi amul benn njëriñ rataxal diggante bi mu nekkoon Yaya Jammeh njiital réewum bi fu sorewul Gambie dara la ñuy wutali Ziguinchor lay doon Agen e Jàmboon mu di rek ñaari bato ya war a kon ngalloo jaabante gi si diggante Ziguinchor ak diwaanu Ndakaaru jàppale ne kon nit ki démb si teewaay yi ko njiitu réew mi Macky Sall la ñu kon ndorteelu ay activité am Macky Sall xam la si ni kon euh, dana jëlab dogal ngir nag wàññi njëgal paas bi jëlee ko si ñaari junni bàyyi ko si euh, junni la mu sa dolli rek moo di dañ amal ab loi bu nga xam ne nag day teggil dépp fiscalité euh, bu soxal liggéeyum wàllu tourisme foofee diwaanu Ziguinchor Mansour Ndiaye jël dogal ngir wàññi njëgu dem beeg dikk bi ci bato bii di Aline Sitoé Diatta ak Diambone mu mel ni kon ci junni kott nit ki mën na si voyager jaaree ko ci bato yooyee man xam naa seen coono yéen waa Casamance xam naa seen jafe-jafe moo waral ma décidé ñu wàññi njëg li prix bi ngeen doon fay ñaari junni pour dem ndakaaru ñu wàññi mu nekk benn junni képp kuy demati ndakaaru wala jógee Ndakaaru du ñëw Ziguinchor ah prix bi désormais junni lay doon moo xam Agen ngay jël moo xam Jambañ ngay jël moo xam Aline Sitoé Diatta ngay jël. cib kàddoom mu proclamé Casamance zone touristique spéciale ci loolee mu nam rek exonéré lii di taxe fiscale yi ci bépp opérateur touristique bu nam a wu ci bi lépp gox. waaye Casamance dañ ko war a jox doole pour que tourisme bi mën a yaatu. désormais danañu wote loi ci assemblée ma ñaan député yëpp ñu wote ko à l'unanimité képp ku bëgg def hôtel ci région bi pour développer tourisme wala ku fi nekk déjà ñu yombalal la dootoo fay taxe fiscale wala ay taxe sociale dikkaat na it ci dragage fleuve Casamance bi montant bi ñu caa def tollu na ci ñaar fukk ak benn milliard ci suñuy koppar gannaaw bu mu visité ñaari navire yi Macky Sall inauguré na it complexe frigorifique mu jagleel ko mareyeur yu nekk ci dëkk bile waaye it lu tolloog juróom benn fukki clé bu bus aftu ngir dem beeg dikk bi ci dëkk bile gën a ñoŋ Abdoul Aziz Sow yooyu lay dogal njiitu réew ma jël kon askanu ko Ziguinchor ñu lu dul rafetlu ko moo xam muy wàññi tekk njëgal paas bi waaye it koppare mu teg ci ni tax taxe fiscale euh, soxal nag banqaasu tourisme bi sa diwaanu Ziguinchor si diiru fukki at euh, terewul nag askan wa nag moom rafetlu nañ bu baax li nga xam ne rek moom mooy dogal yooyu mu jëlal san balde wàcc na kon ci rek euh, mbedd ma taataan xalaatu ñenn si askan wa ñu teewlu leen leen indil gis nañ également li mu wax na dina ko def ci chemin de fer ci leneen ak ci leneen gën a dëgëral nag suñu ngëm-ngëm ak suñu yaakaar ci nekk ak moom. sonnoon nañu trop boo ñëwee bac ba baku Gambie da nga fay taxawaalu taxawaalu fa te mën nga am billet moins cher billet les billets d'avion sont excessivement chers. ñu jël euh, kii nu mu tudd par la cher comme bateau bi aussi c'était cher léegi comme defal nañu bu ci nekk wàññi na ko vraiment kontaan nañ trop. tourisme bi moom la ñuy dundee. en basse Casamance aussi surtout dans les îles tourisme bi doxuloon dara dara taxe bi métti yoon na comme que nee na encore daf koy wàññi néew daf koy wàññi sax mais nee na bi pour au moins ans fukki at vraiment loolu tam ñu ngi ko ñu bu baax a baax. jàngeen jëf rafetlu ko naan bi ak Sen TV bi lépp jotaay xibaar daal dinaa buur bëccëgu jàmm ma leen koy ñaanal te di ko sàkk ci yéen.